Euh, ñu war ci waxtaan ak ñoom ndax fi ak semaine prochaine ña soxla xaalis war nañ koo jot parce que nañ ko soxla pour fay ay salaire comme jot nañu dossiers yi njëkk yi baaxoon nañu gën a euh, faram-fàcce li nekk ci crédit hôtelier ku nekk xam ci noo ciy doxe loolu wala tey ñu fàttali rek la nga xam ne moo ci nekk mooy bi ci njëkk mooy crédit hôtelier dañ ko yëkkati pour euh, entreprise bu nek ci secteur yi ma lim muy tourisme muy hôtellerie muy restauration muy transport touristique muy agence de voyage ku ci nek ñu fexé la jàppale ba sa entreprise du daanu waaye aussi ñi fay xey du ñak seen xey lolu nak dañ lay jàppale ba sa salaire ñetti weer yi ñu jàppaleel ba nga fay ñaarel bi moy euh, crédit hôtelier dañ ko yëkkati pour investissement manam fexé ba liggéeyukaay kay muy ay hôtel muy agence de voyage ñu mën leena yéssal bu ñu mën nek euh bërëb yo xamné ne ñu jankato jànkatoo ak seen ay nawlé euh, fi ci euh, sous-région bi ndax bu ñu génné Covid bi ak jàmm Sénégal dina nek ci compétition ndax yeneen réew aussi dañuy ku nek da ngay bëgg jël sa wal mais waxtaan nañ tamit ci manam ëllëgu Covid 19 inshallah buñ ci génné ak jàmm waxtaan nañ ci développement tourisme intérieur tey par exemple waa région de Diourbel département de de Mbacké ak gouverneur bi wax nañu lu am solo lo xamné même wa assemblée nationale sax ñu ko doon fatali bu fa jari ci loi des finances euh, loi des finances bi passé moy tourisme religieux ndax Sénégal tabaat fakal kala yalla bax nañu ay bërëb ak ay kilifa diine yoo xam ne àddina yëpp mën leen ràññee ñooñu bax nañu mëna organiser wu ba sénégalais gëna xam sen cosaan gëna xam sen adaway gëna gën a xam également seen kilifa diine yooyu ren tourisme na nek lu xawa soxé ndax daanaka réew yëpp kenn du tukki ren loolu nag damay ñaan waa Sénégal ñi nga xam ne faral di dem bitim réew di fa dem ay vacances ma def ay colonie de vacances entreprise yu mag yi ñu ko suñu hôtel yi ndax kat def bu ko defee ba yëkkati ko yaakaar nit ñi mën nañ am xëj na yeneen xalaat waaye fii ñu toll comme dañu nekk ci guerre boo xam ne réew bu nekk da ngay jéem jël sa euh, mën-mën sa kattan pour développer développer sa réew si dafa nekk appel boo xam ne lance à tout toutes les grandes entreprises